téereb ngelaw duma fàtte mukk bés ba ñu jëli jee néewu asantaal aéroportu ndakaaru bésu alxemes la woon bi timis di waaj a jot ba nu demee ba jub tali ngaala ju mooy jàddukaay bi mujj ci yoonu aéroport lanu dajeek mbooloo mu takkoo takku kaar xanaa waroon naa toll ci ñeent mbaa juróomi téeméer yi junniy nit ñii ngi waaxu ñii di xëlu ñax bay siin ñi ci des dugg ci car rapide mbaa ñuy dawal seen oto bopp ñu gën a féete ndaw war seeni moto ñëpp di yuuxu di tàccu coow li ne kur sofoor si kornete bu bàyyi koo dajeel mu ngi def rajo bu ndaw ci noppam gone yi mel ni ñu tàggook seen sago footolu dégg ñuy saliiru du Modou vive Modou Modou Modou naka laa dégg tur woowu rek daal di nànd ni mbir mi deme dëgg la sax ndakaaru bare nañu fi tudd Modou loolu kenn du ko werante wante foo déggee ay gone du yuuxoondoo Modou Cissé na lu wóor ne sunu woykat bu mag bee ko waral Modou Cissé rek a leen ko jaral am na sax ñuy wax ne woykat yi ci Afrique yëpp yépp Modou Cissé ci moroom ñeneen ñi nañuy dem banaan képp koy woy ci àddina si Modou Cissé la ko dàq fuuf man nag dootuma gone xam naa ne yëf yi moom njuut njaaj moo ci ëpp saa yoo gisee ay doomu aadama dankalikoo benn bërëb ba noppi te xalikook seen sago di yuuxu wiiw diw wiiw diw di kadd kaddi di say xamal ni am na ay boroom pexe yu seen ceeb di tooy doo leen gis mukk ñooy donkan ca pet muuroo lëndëm di wàññi ak wàññi waat xaalis bu dul jeex tey kex-kexi naan ci seen biir yéen ngaa ko dëgg bés boobu may wax nag Modou Cissé dafa jóge woon bitim réew ci li ma jotoon for daal ndam lu rëy la fa indiwaale woon yàlla def mook néew asantaal ñu bokk benn roplaan ma ne guma ci woon dara ndekete fan yooyu yëpp réew maa ngi waajal Modou Cissé teeru bu mag a mag kenn mënul woon ubbi rajo mbaa télé te doo dégg du ci wax waxu Modou Cissé mbaa nga gis ko moom ci boppam muy fecc di woy am na sax bés Daour Diagne njiitu réew mi waxtaan ak ci xibaar yi ba noppi xaw xawma lu kuy dóor pooj daldi ne ciy kaf ah xawma kan waaye man Daour Diagne mii de bés boobu ku ma dëgg aéroport Léopold Sédar Senghor ne ma mas bi yëf yi weesoo laa door yëg loolu lépp sekkoon na nun mbokki asantaal yi nu ngi ci naxar wu rëy wax dëgg yàlla taloon nanu leneen lu dul déglu rajo seetal ma lii rekk di jëli sa néew am naxar ak tiis daje réew mi yëpp ñuy mbumbaay di fodi ree yëf yi mel ni tuq su bënn keroog laa yéemu dafa meloon ni waa dëkk bi dañu amoon mbégte ci deewu asantaal gi ñëw di ko wone lu nag mbokk yi lu soxaloon moo doon fexe ba jot ci asan delloog moom ñelelaa ci jàmm ak salaam def nañu sunu kemtalaayu kàttan ngir bañ a réeroo ci sunu biir waaye dañu mujjee sey ci mbooloo mi doon jëm aéroport Sédar Senghor kenn ci nun mootu la xàmmee yan oto ñoo doon jël si néewu Assane ak yan oto ñoo doon sargal si gone googu ñu daan moo dàq way ci àddina si juróom ñaar bi néewu Assane newoon daa mujjee taxaw am na sax ñu ñëw ba fëgg ko di yuuxu xanaa yaakaar ne woykat bu mag bee ko ci biir wante foo dem di nga fa fekk nit ñu am seetlu kenn ci gaa moo leen ni ah mel na ni am na ci yëf yi de ñi ma gis de defe naa tal nañu leneen noonu ñi mu àndal jëli li mu wax daldi ñu xalal yoon ñu jàll balu nañ ñu àq sax am ci ñoom ñu ñaanal asantaal bi mu ko defee ñu tegu ci yoonu ñare la li ma la nettali noonu ci diir bu gàtt la xew boo seetee sax danga naan mbir mi taxu ko am solo njuumte fépp la xaj waaye man mi nga xam ni ginnaaw sunu borom bi kenn gënumaa xam asantaal dara mënul tax ba ma fàtte bésu alxames boobu asan faytaal juruma ko yem ci maa ko yar defoon ko nawle moom it mu defoon ma xarit laata muy dem tugal dëkk fa fanweeri at ba dogalu yàlla fekk ko fa lu mu mës a xalaat mbaamu nar koo def da ciy jëkk diisoog man suñu waxtaanee lu ma ko digal mu jaar ca kenn réerewul loolu mbir dem nañu sax ba sama mbokk yi xultu naan damay gënale asantaal ak sama yeneen doom yi maanaam dem si yàlla ji Pape Demba ak ndey soxna may sëy boloña ba asantaal dee dund gis naa ko ci nekkin bu ne wante bés ba ñu koy dénki boroomam nit ñi bég di fecc di tàccu jéggi ndaw ji sar xolle dama ne badu bés boobu du génn mukk ci sama xel ndaw naxar ndaw tiis am na sax benn góor gu ma ni lu kéemaane li xew ñale laa ba réew mépp di ko coow mënuñoo jaaxal nun ñi demoon jëli néewu asantaal aéroport yëf yi nii rek la mënoon a demee gëm naa loolu ma nit saa su ne sunu boroom a ngi ñuy artu du tàyyi du noppalu waaye dañu neexul la dimbali nun doomi aadama danoo tëx gumba te gaaw a naagu fan yee ñu génn noon naa la sa baay asantaal bitim réew la faatu nun ay mbokkam nag xibaar bu tiis boobu dafa noo jóge kaw ndax mësunoo yëg fu asan woppe ndaw suñuy wax yaasin njaay moo ma woo bés ne ma asan génn na àddina ba ñu demee ba ci biir waxtaan wi laa door a xam lu mu joteeg asan taal moom yaasin njaay moomu maa ngi fàttaliku sunu waxtaan ñun ñaar dama soxla woon ngiraan faytaal bàyyu asan ah asan man asan taal te bu daan football fii ci Marseille ah man a ngiraan kooku Yacine Ndiaye laa tudd waaye yaakaar naa ne xamoo ma de góor gi waa fan tugal laa lay wooye maa ngi Marseille ma tàmbalee jàmmanteeg moom mu dog ma ci lu gaaw góor gi nga baal ma de waaye fii may wootee dafa xaw a sore dafa am lu mu la a yëgal ah loolu lu mu noonu mu ne teg ma ni ko mbaadu euh, Assane daa feebar mu ne ma feebar bi yóbbu na ko loolu kañ la biig ndaw soo wootee tugal nag taxu ko am yar ñàkkewuma teggin gaa wante nit su faatoo fu soree noonu nga koy yëgal ay mbokkam dafa am noo ko war a defe moom loolu fekku ko ci dafa mel ni sax li ko gënoon a soxal moo doon nan la ñuy def ba dugal néewu Assane ci roplaanu Air France bay bawoo tugal bëccëg bu ne ter ci Ndakaaru ñaari baat yu nekk Yacine Ndiaye ni ma ah xaalis bu bare la laaj dama war a fayal mbisin ak mbisaan bi ma ko laajee ñoo ñan la ma soog a xamal ne ay doom yi asantaal lañu mu jaaxal ma lool ma ni ko ah asantaal kañ la fa am yi doom ma de ma dégg loolu foofu mu xaw a ñagasal baat bi ni ma asantaal am na fi doom te man Yaasin Njaay mii di wax ak yow maay seen ndey nekkoon it soxnaam xamatuma lu ma ciy teg ma daal di ni ko ah ba léegi nag soxna si foofu de su ma bañul woon fenn dinaa ne ndaw si mer na dëggantaan lu leer daañu la ma ci tegal góor gi jottali ma benn gone ci kër gi ma wax ko fan ngeen may mën a woowe su ko defee saa yu ngeen jekkoo ngeen yónnee ma xaalis ma ànd ak néew asantaal indi leen ko ñaare la so fàttaliko yow ba du sax laa booleeg moom yéen ñaar ngeen nasaran. seen nasaraan ci ngeen njëkk waxe yàpp yaasin njaay waxuma ci dara ndax tàmmoo di nettali mbaa di waxantu loolu bu sa jikko waaye teewul ma gis ne seen jokkoo bu jëkk boobu xol bu tàng dong nga sa jëlee nga xam ne boog ni yëf yi demee tey jaaxal na ñépp ba mu des man ci la la Yaasin Njaay xamale ne lu néewu asantaal gën a toog ca morgue ba ca tugal xaalis bi ñuy war a fay gën a bare sama bopp bi ubbu lool ndax xaw ma fu may jële ay million mu wóor ma ne du Yaasin Njaay moomoo façon a yéene sonn ci mbirum Assane ba ciy dugal alalam xam nga Badu mag day faral di am seetlu ak li may ñàkk xam lu diggante asantaal ak ndaw soosu demee yépp leeroon na ma ni mosuloo nopp sa baay te itam mosu koo naw ku bëgg nit baa nga naw ko neneen ngay doxale bu génnee àddina rawatina bu dee danga ne sa boroom kër la woon fanweeri at yu mat sëkk asantaal toog ko bitim réew nekk ci lu ko deex bindul wootewul yu mel nii moo tax ñu naan ëllëg du añ du reer waaye des koy sédd waaw asan ak jabarte kenn yëgul fu mu ko takkee ah baru si tey jaaxal nañu ma xalaatoo ne asan dafa mujjee dof tugal ga mu nekkoon xam naa ne sa baay la waaye du teema laaj la loolu ndax dootoo ko ne léegi ndaw saa ngi waaj ñëw ñaari la nar ñu fee indil ñaari doom yooyu gisin ak ngisaan ay doomi asan te ñun yëguñu tinuñu say rakk yow badu waaye cëy su yaasin njaay géntoon booba li ko fi xaar moom it kenn gënu koo sàggan de moos ron naa xam ne tugal ak ñaare la duñu benn fii de ndekete bi ngi sàmb ko fi doon yeeru ak meram mu tëw a giif bi fi weesoo la ay xaritu bii sàmb soog a nettali ne sa yaay doon na faral di dëkku asan naan leen asan taal bés bu wàccee ndakaaru kasolaay laay fanaani ndax dinaa ko gor jaasi mu dee ma soog a jébbali sama bopp yoon waaw badu sa ndey bii sàmb moo doon wax loolu eh, far yàlla def asan taal faatu tugal taxul ba tey meru biige giif waatoon na ne faaw mu fayu te Bige Sàmb fayu na mani fay na Assane ba wisku dinaa ci dellusi ci jëmmu jamono ay weer a ngi Yaasin Njaay nekk ci kër gi waa gox baa ngi koy jëw bi ñu tàmbalee coow ci ay mbiram ba amu ci senn laa yëg ne mook Assane nekkaale nañu ay ati at ca Marseille nee nañu it Assane jëkkoon na faa takk benn tubaab bu tudd Nathalie Yaasin Njaay dugg ci seen sëy tas ko lu ne ñu ngi koy wax dégg naa dafa takkal pol jabaru Assane kooku mujje daw ba kook jëkkëram fi nga koy gis nii moo fi dàq sëriñtu ah xanaa déet kay ak làkku tubaabam yu metti loolu lañu tuddee tubaab jël xaar dàll san kawas rakku ndey saar bi nekk Paris moo ma woo kiroog ne ma nanu moytu Yaasin Njaay ndax jaaxum lu nekk def na ko dugal door a teer sa ñaare la dara cagatu dong la fa nekke woon ku demul gànnaarit xam ne guddi lañu fa reer waaw ña jot a gis tugal nee nañu Yaasin Njaay ku fooye woon boppam la dégg naa nekke wu fa woon lu dul naan sàngara ak tox yàmba wax nañu it ne da daan cagatu sàmba booy jóge fële ngeen waxaale ba juboo nga tëj ci sa puntu néeg jaaxaan mu dem ci dem yoonam keneen ñëw yéeg moom it wàcc wàcc la fa bu bëccëgee ngay wàññi sa koppar naan bisig de marché deex na dem nañu sax bay ngun nguune ni Yaasin Jaay moo wàll Asan Taal feebar bu bon bi ko yóbbu xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg leen daal wóor na ma ca njëlbeen nga la waa ñare la xaare yaasin njaay lu ñaaw li ko dal ñu bare ci gox bi yéene woon nañu ko ko ah badu yaasin njaay ak doomam yaa ngi may bëgg a ngi génn xet gën a jéggi dayo am na yoo xam ne de su doon sama sagu duma la ko nettali waaye nu may def war ngaa xam li fi xew sa ginnaaw yépp te man dong maa la ko mën a àggee